mu ñëw tuus tuus bu neex boo xamante ni nii xaaral ma bàyyi ko mu ñu doog a waxtaan ci tuus bi doog ñëw ci làmb ji doog ñëw ci biir làmb ji ak après làmb ji ma nuyu naa. fay naa la Ousseyn di la nuyu di nuyu waa. wasaare di ñi may àndal. di nuyu kenn koo xamante ne tamit dafa sori ci man ba suma koy wax mënu ma koo kii muy jooni xam nga combat bi samedi la commencé jooy ba dimanche ci guddi. lan la doon jooy. damaa xam samedi si guddi ba dimanche si guddi mi ngi jooy. combat bi jeex na mu yeggale di jooy. kenn xamul mbégte bu ëpp daal. sa diggante yow ak moom lan la. ah diggante maam moom mooy dafa nekk sama grand nekk suma xarit mm, fu fu ñuy dem ci fii Sénégal fu ñu jëm ñooy ànd mu ñeewantal ma xam nga nit koo xamante ne booy nekk ak moom guddeex bëccëg tey mu war a dem ami bis xëy na da koy ñeewantal ñewantal boobu muy gis man mooy tuur ay rongañam moo koy jooyloo ci koñ bi moo koy def gone mu nekk ci koñ bi di yuuxu di jooy waaw ah, mais loolu yëpp ñeewantal la rek dama koy ñaanal jàmm rek moom. bés bi nga doon bëre démb ak bés yi nga jot jàll est-ce que am na différence. amul différence de parce que boo dee seet avant combat bi yëpp loolu laay wax ni ma doon paree samay combat laa koy paree ni ma doon bëree laay bëree changé wu ma lii defu ma lii defu ma laa yee te ba mu ñëwee tamit loolu laa indi. bi nga dugg see ci stade bi gis ni stade bi mel mu nekk sa premier grand komba bi nga dugg see takk xool nit ñi xam ne tey bii sama bisu examen la nan nga njëkk xalaat. waaw li ma njëkk a xalaat mooy yàlla mooy xañe yàlla mooy maye sama xel fa la njëkk a dem yàlla damay am bis génn mu may ma ndam ma ñibbisi kontaan sant ko kon tey su ma amee bis dama koy delloo lépp ci loxoom su ma joxee ma jël suma xañee ma dem wuti juwaat te santee ko ko dem foofu rek laa teg bis bi. Euh, ñu ñëw ci tuus bi ñu gis la Mathieu nga taxaw baak tuus yu yëngal stade bi tuus bi da nga koy répété. mais tuus dañ koy répété. parce que ma gis mbër yoo xam te dañuy ñëw ba fi ñuy taxaw buñ tuusee ñi dañuy jaar gauche ñu jaar droite ñi taxaw di seetaan duñu déggoo mais dama gis bu tuus bi ngeen déggoo ci nga tuus lu neex. waaw ah, tuus bi noonu la boo gisee open de presse bi lu ma fecc moo dàq lu ma fecc làmb ji. open de presse boo xoolee lu ma fecc maanaam fii ko ñu géwal la ko ñu pàccaali juuf la fii ko ñu géwal gi la ñun bu ñu feccee day neex bu ñu bëree ñu neex. ñu ma ma ci stade bi na la gis naa ne sa combat yëpp danaan gaaw est-ce que sa diggante ak Saba gaaw nga tontu ma la. ma ne la rawuli bët ci kanam léegi di nga gis résultat loolu laa la wax. Mhm. ne la du bërekat la si kanam léegi di nga gis résultat. mais ñu gis bu ñu yegsee ci digg géew bi démb euh, li Saba waroon def yaa ko def parce que Saba dafa ñëw du stade bi ba mu fees ñu gis ko mu woon concentré wu toog ci jumukaayam mais chaque instant gisuñu la benn yoon da nga toog ci jumukaay euh, sa làmb ba dugg ci digg géew bi mu mel ni démb da nga ko wan ne maa la mag ci làmb. waaw si comme que moom nee man mag laa loolu la man ñii ñooy sama ñii laa judd lool noo nga ci am ñii ñii léegi mu ne man mag la comme que mu ñu léegi foofu lañ ko teg. boo fi bëree ñetti combat ñeenti combat ñu commencé laa yóbbu mag naan la mag nga mag nga waaw ma indil ko mag laa ma teg mag bi rek bàyyi ko xale bi. mu yëngal stade bi di daw. waaw ma bàyyi ko xale bi rek teg mag bi comme ko mag laa. ngay ñëw ba ci digg géew bi ñu gis ne euh, gàllaa ci bari na mais nag man dafa am lu ma ci seetlu gis naa ci ay butéel yu ndaw yu ba yoo xamante ni moom nga yoon butéel yooyu fu mu jógee. waaw ah, yooyu ay musluwaay la rek ay butéel làmb yooyu ay musluwaay la rek xam nga yow butéeli tey jii yaa ngi ne stade bi gis nga nu mu mel. <laughs> xam nga yaa ngi ne stade bi nu mu mel mais tamit ñun ay doomu aadama lañ. te yàlla moo bind doomu aadama ne day def muslaay si yaramam tey jii amaana duñ simeeku yaramu neen taxaw si mbooloo gu mel noonu di jaay suñu bopp di fecc bët yëpp nekk ci ñun te duñu aar suñu bopp ay doomu aadama lañ rek. dinañ dem suñu yàlla may xam-xam ñu dimbali ñu aaral ñu suñu bopp mais tey jii nii jàpp ñu mbër tey jii ba nga ñëw stade ñëwoo. bëriwuñu wax ba ngay bëri ñu ne kii dañ koo takk wala mais démb ci ay ci ñi nga xamante ne dañuy suivre làmb nañ sabaa bañ xamoon ak sabaa boobu du benn. waaw làmb déggoo li ma wax noonu la làmb tey ji nee naa la amateur yi ñuy seetaan sooy daan moom yaa ngi daan rek mais boo daanoo rek dinañ indi benn criqueté ñëw teg ko parce que jukkooy sénégalais la moo tax suñu équipe nationale mënul dem fenn parce que ñun ñu koy supporter ñoo koy xasaat. Mbadou bu bu équipe bi na football ñëpp ay coach la ñëpp coach la ñuy nekk bu jeexee ñëpp nekk xaskat xas équipe bi ñun jikko ñun jikko boobu lañ yor ñun nit ku ñu. ñu sport li ma wax chaque jour sport ñett la. toi. comprend comprendre lul sport xamul sport parce que ñàkk xam sport sax moo tax ñuy daan nga yàq stade dindi saisi sandi yàq saisi te li nga yàq noonu sa yëf la yaa ko moom dañ la ko faa tegal pour bégal la yow mbër mi pour yow comme sa teraanga fa la ne yow dañ la kaa tegal defaral la ko pour tey jii nii nga ñëw di fa daan sa doole di yóbbu sa si nga am moo tax say supporter dañuy ñëw yàq ko la moo tax comprendre ñu ne la défaite la man daan naa Saba mais am na ñu fi daan ñeneen yàq stade bi sànni saisi dérégle génn télé bi def leen neex kon Sénégalais bu mu bon cricket moom ci moom lañ koy fekk si moom lañ koy bàyyi moo tax chaque jour yàlla na ma yàlla baal ci wax ji da ngay dégg ñoom la Sénégal bëggul nit ku ñuul bëggul ku ko jiitu. genre wax yi moo tax parce que da ngay da ngay da ngay da ngay liggéey ba sonn yàlla suturaal la may la ndam nga dégg ñu la siy saltalaat di la si wax wax ñu ñaaw parce que bëgguñu ko dem. sañoon yow yaay dem. ñoo lay pousse ba nga dem ba noppi ñu. xëcc ñoo lay xëccaat di la di la diriwaat te aduna doxewul noonu Ouzin aduna yàlla mooy maye ku gëm na yàlla mooy maye doo ñàkk dara ci aduna. billahi wallahi tallahi damaa gëm na yàlla mooy maye te su ma xañoon démb démb démb doo musa a dégg ci aduna ma ne la sabaa nii wala sabaa naa damay nangu lu ma xañ ma ànd seex samay mbokk ñu ñibbi si ma dem entraîné waat pour leneen. Euh, Baye Djily dem na jëlee ki nga xamante ni mooy Saba woo na ma léegi nee na pare na ak moom mais damay ñëw ci diggi géew bi Saba taxaw na taxaw nga abit sifle nga dellu gannaaw lu wal parce que làmb ji yëpp dañ koo ne yaa mën maca yaa ko dàq bëre bu arbitre ne prip jàpp ko nga moom daan ko te loolu nekk ci boppam lu ko gën a pire mu ngi sam bopp. bi ngay départ ñëw ci digg géew lan la yabee. luñ ma yabee mooy dalal parce que moom dafa jàpp ne bu la jàppee rek daan la te xamul ne lu mu indi lu ko raw a ngi ci parce que moom loolu la indi moom lay waxee man signature bi moom lay jëfee foggu boobu lay demee ba si ëppanda sam noonu la dem noonu la waxee noonu la jëfee mais man Olof njaay nee na bu la kenn gëmul gëmal sa bopp boo dox ci àdduna bu la kenn gëmul rek gëmal sa bopp parce que man ñëpp ne nañ sa baam ñëpp ne nañ Saba dégg avant lamb ji. avant xam nga loolu gën a métti ngay pare lamb ñëpp ne kii la mën man Saba suma ma mënee dama war a sama sama ngemb dem bay ji su ma Saba mënee. arbitre bi sifflé Saba dox jëm ci yow nga reculer. waaw parce que lamb la ñu wax te dañoo toll ci lamb instant boobu dàq jiw moo ma daw ma dara dañoo tegoon si stratégie teg ko ci bopp won ko ni bëre bi ngay wax da nga koo dinañ la dinañ la damyee bëre ak yow. moom dama ko doon damiyee noonu. dama ko doon damiyee mu fekk si la si sa waaw mais ñëpp gis nañ ne euh, ni Saba def daw dóor la daw jëli la ñëpp dañ ne woon Mathieu noonu lay bëree te loolu mooy làmbam. ma ñëw bàyyi loolu teg leneen moo tax Mathieu bu kenn calculer bu kenn wax Mathieu lii la mën ak lee la mën. mais ñu ci bari ñoo ngi naan euh, est-ce que jël am na est-ce que arbitre bi teelul sifflé wala boog est-ce que teelul joxe euh, victoire. waaw loolu nañ ko wax ak arbitre bi parce que Mathieu sifflé wul Mathia. Mathia sifflé wul c'est que li ma lay wax sànq rek sénégalais maanaam lii sax dama naan ko borom xol bu ñuul sax moo koy wax parce que nit mënoo koo ñàdd ba nekk ci kawam wër ko nomba jàpp bu mu dëgër arbitre sifflé bu bàyyoon tamit day yegg suuf rek day gën a ñaaw. Euh, Jili moo ngi may wax léegi. ëpp ma doole ba ma war ko wër nomba sabaa ba mu war a jàpp ba wër ko nomba mu may rëcc ëpp ma doole maanaam nit boo soxoree rek soxor sawa jii li may wax léegi nee na sawa na euh, daanuwul deful quatre appuis te boobam boppam laalu suuf ban instant nga gis ne sawa daanu na. alma sama téléphone. li di wax ak nee tubaab boo xam tampon la bëgg wala signature nay leer euh, mais Saba nee na bi combat desee trois jours dafa def soog loolu bokk na ci li gën a yàq làmbam mais bëggu woon yàq bi. non loolu bu ko wax da ngay wax lii nga gis ba pare lii nga xam nga lii nga ma laaj ma jox la preuve da ngay wax yow lii nga gis ndax amateur mënul nekk amateur ba gën nekk amateur yow miy nekk si rond central bi di seetaan. Ah, mais man man xam nga fi mu toll nii je suis mal placé pour wax ne daan na wala daanuwul bi may bi may reporté bi li ma gis wax naa ko mais ni yow lan nga gis. ah yow gisoo. non man gis naa mais ñii seetaan yow lañ bëgg a dégg. man lañ bëgg a dégg ñuy ñu seetaan rek. ñoom kay nañ. gis nga ne fi mu toll nii. Euh, Saba def na carte appui te bopp bi laal na suuf. yaa ko wax de. man dama lay laaj. moom laa la tegal nii. non man gis naa. mais ñii seetaan. waaw ñii seetaan man moom ñii seetaan. ñi ma gëm bëgg ma. dan samay samay samay nit. di ma supporter ñoom xam nañ ñu mu demee mais pour ñeneen ñi concerné wuñ ma lu ñu wax baax na lu ñu waxul baax ñoom concerné wuñu ma doxuma sax ba xalaat leen en tout cas li ma si li ma siy wax mooy. Mathieu ci li mu war a ne mu ngi ci te def si lay nekk ba keroog muy dee. mais ñu gis euh, bi arbitre bi sifflé na ngeen tàqalikoo dugal ma ko ñetti coup lu waral lool. ma ne la ñi naan daanuwul bu arbitre bi sifflé wul woon dama koy duur ba mu dee. ci moment bi nga ko wëree ndomb. barke alxuraanam karim moment yu mu waroon noo su ma ko wëree ndomb bu arbitre bi sifflé wul woon dama koy duur ba bopp bi dugg si suuf si. lan ko dencal. da xam laa ko dencal. parce que mag laa. mag laa quoi mag laa. loolu laa ko dencal mag laa dina ma bëreloo dina ma daan dina ñibbi loolu moo noonu xale day entraîné na nekk xale koñ bu mu dëkk yaakaar ko gox mi yaakaar ko nga taxaw devant la public naan ko di ko duma di ko daan nee na sekku tax man taxaw di léewtoo nee na sekku tax man loolu. lu mu sekk am xeeboon waaw nee na moom lu mu man mooy ñëw humilier ma dem ñibbi loolu la sekk man moo tax humilier boobu laa ko naroon def far at bi dimbali ko dafa am ñaan na jàpp ay ñaan katam. kon dafa am sens démb. billaahi wallaahi dafa am ñaan na jàpp ay ñaan katam na leen jàpp bu baax bu arbitre sequl woon sifflet bi dinaa ko def loo xamante ne kullu kuy mbër dina ko xeeb. mais est-ce que nga ne nee na dafay def recours. na dem recours kenn moomu ko seen seewa ngi noonu kenn moomul recours na dem def recours nee naa la sabaa su neexee ay recours yëpp jaru ko na ko waa Seeraas ngeen woo ma teelee Daaru Salaam Mendy <laughs> kon yow fi mu doon làmb ji jeex na mais pareeguloo. billaahi wallaahi pareegu ma ci su bëggee léegi léegi léegi na ko waa Daaru Salaam ngem ma indi sër man kese ñu woo ma téléphone woo ma fu ma nekk ma indi sër ma indi sër ñu taxaw. téléphone yi def ni mais ma ca sa tàng na de. du tàng parce que li ñuy critiquer nii pare naa pour bëre waat ak moom suba. <laughs> ma daal bëri ba noppi mais dafa mel ni doyul li mu bëggoon. dëgg dëgg dëgg dëgg digganteem ak sabaa dafa mel ni amuloo ko. pare naa pour bëreek moom suba su bëggee na ma waa Daaru Salaam woo bu mu doon arène bu mu doon dara terrain bu leen neex ma taal sama scooter fekk leen fa ak sama sër ñu ngeem ma Saba indi. mais nag Mathieu nañ ko waxtaanee Sénégal gi yëpp nee nañ nga wàññi sa galaaj parce que fi mu toll nii xam nga fi bëgguma kenn dégg ko fi mu nii moom xam naa ne boo ko wàññiwul des na tuuti booy dootul na jël. galaaj booy ñoo gis galaaj mais dóor bu mbër mu. mu mbër daanu. mbër bu ma bëreel action lañ bëree. mais combat yi ngay gaaw bi muy gaaw ki ngay bëreel sax du comprendre. <laughs> ñi may bëreel ñoom daan nañ doon daan xanaa gàllaaj la. est ce que xam nga ne combat yi nga bëri est ce du bii moo ci gën a yàgg. maak albarka kee dañoo bëre ba temps bi jeex. maak dañoo bëre ba temps bi jeex. maak njaga oor dañoo bëre ba temps bi jeex. yu mujj yi moom dañ gën a safal ak. gaawan dañoo bëre ba amateur yi jug man da ngay dugg nga xool sama paas ku ne gàllaaj wala ni dama la ne ni moo nangulul nit sénégalais gaawul nangul nit moo tax duñ dem ñu ñëpp yem duñ dem. barke alxuraan duñ nangul nit dañuy doon noon noon noon ba xam ne noon bii mënatul nekk ñu mujjee bëgg looloo am fii senegal dañuy nekk noon nekk noon nekk noon ba noon bi ñu xam ne mënatuñ dara ci kii ñu noonu ñu mujjee nangu looloo fi am. lan ngay wax ñi nga xamante ni démb déplacé wu nañu ah, muy say supporter di amateur ñëw démb ci stade bi. waaw mooy ñëpp bépp amateur maa ngi lay sant di la gërëm di bëgg waa surtout samay supporter waa Medina Gounass di sant suñu monsieur le maire Baydi Ba maa ngi koy sant di ko gërëm jàpp na si combat bi di sant kenn koo xamante ne kenn la ci man li ma nekk moo ngi ci muy Fouta Kosam mouvement Fouta Kosam maa ngi koy sant di ko gërëm di ko xamal ne moom it lu mu nekk ñun ñu ngi ci. Serif Ngaydo maa ngi koy sant di ko gërëm jàpp na ci bu baax a baax a baax waa Israël waa xal bi waa marché bees ñoom Birdel jàpp nañ ci Henri xam nga Ron Pafal Seexu xam nga gars yi Abbas xam nga gars yi dañoo sonn ci combat bi jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax su ma limee damay juum ñoom Seck Ndaanaan xam ñoom Papa Ndiaye Bayal Kase xam nga ñëpp sama gars yi yëpp maa leen di bëggee dund bu gën combat bi moom du ma ko sant sax moom jarul ma koy sant jarul koy gërëm parce que combat am la moom combat am la bisam la xam nga jarul ma ko si sant jarul ko si gërëm di ñaanal suma rakk Boy Niang mu ndaw yàlla na ko yàlla defal ndam le premier janvier bi mu jëm ndam lu sedd ci ay ndamam maa ngi koy ñaanal si xol mu sedd guy di ñaanal képp ki nga xam ne daal yaa ngi dëkk géej waaye am combat muy Baye Ma Ndiaye maa ngi koy ñaanal moom tamit ndam ci bis mu jëm di ñaanal écrit waalo képp ku fa am combat maa ngi lay ñaanal ndam di sant Madji Madji di santwaat coach Roon Arona Sall maa ngi koy sant bu baax a baax a baax taxawu nañu sonn na si ñun jàppale nañu xoolu lu ñu am ak lu ñu amul day xëy liggéey guddi ba ba ba fajar continué waat ñëw école ba àndaa tax ñun jàpp si entraînement yi ndax ñu réussir rek ñu koy ñaanal mébét boobu mu am si ñun yàlla na ko suñu borom delloo yàlla na ko suñu borom fay di ko di ñaan coach Jules maa ngi koy ñaanal tamit moom it comme d'habitude waaw di ko ñaanal jàmm ju baax baax Mouhamed Ali Ndiaye maa ngi koy ñaanal Aziz Ndiaye suñu papa Zador ñu ngi leen di ñaanal sant baay Ndiaye ñëpp xalil Sora Ale ah maa Ibra baaba Yoro sëñ Mbay ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di bëggewaat ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw. di bëggewaat ñëpp ñëpp ñëpp. ñan ñoo war a ñëwaat fi mu ñu war a ñëwaat moom maa ngi xaar gaa yi rek di déglu gaa yi rek comme man moom maa ngi sama rukk di déglu gaa yi. comme ni ma koy waxee rek man moom maa sama ruku di déglu gars yi. mën nga bëgg ngeen adversaire parce que ñu ci bëri dañuy xalaat taay bi. loolu bi bi ma bëree bi passé xalaatuñ taay bi. marsa ba. jeex na xaw neexoo tamit par rapport ak yéen adversaire ci kanam. ah ba ñu yegg ca. Ah, ñu yegg ca rek ci kàttanu yàlla. mbokk yi ni leen koy defalee ci Wassare Lamb di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër jaa ngeen jëf Adama.